the time. Con se na ñëpp guux nga. ah kon guux lañ doon impôt dépôt ñëpp xam nañ ni dañu ñëw si Cheikh Ngom pour jàppale Souleymane Ndiaye na leen tapis ok yëngatu leen borom ma ni jug leen borom bis bi egsi na ma ni jug leen borom bis bi egsi na surtout Alboury Ndiaye bi ñëw na ki ñëppi doon xaare ngi noonu ma ni bés surtout borom lay tolloolu ki askan bi bëgg ki Sénégal bëgg ki si waa Ziguinchor bëgg ki la président de la république wóolu ba yëkkati marché aéroport yëpp Só nascer. bırakın. kii dafa ne Souleymane fu mu deewee foofu laay deewee waaye noonu la mën a mel ndax Maimouna Ndiaye mooy yaayam Diop moom di baayam ma ne Cheikh doom yaay gor ma ne Souleymane mii dañ fi am cër ndax Saint-Louis moo nekk premier capital du Sénégal en 1822 ba ñuy xeex xare Safina ànd ak maa Fodé Yacine Dal Demba Cheikh may ma tuuti Cheikh may ma tuuti tey il faut que ma wax ak Cheikh. ni nga wax merci beaucoup may jox euh, asalaamu aleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñam di leen délégation ñu koy nuyu di ko sant di nuyu représentant ministre d'État Benoît Sambou te Lansana Diaw and ak délégation am ñëw ko di nuyu représentant madame la ministre Aminata Angélique Manga té monsieur Ba mi téwal ko ñu fi ne nag ay kilifa lañ ñom ñoo and ak le président Souleymane Ndiaye muy kilifa yu jógee Dakar comme dañoo guddee maa ngi leen lim délégation waaye ay kilifa yu mag ñoo ànd ak moom. ñuy gërëm rek ñi nga xam ne tey ñoo ñëw teew man nag maay coordonnateur régional bu Ziguinchor ñu may wax Cheikh Ngom. monsieur Kaouzi Touré filha. fi teew

di nangu naa mi di Sénégal da nga fi am boo ko xamee ak boo ko xamul ndax dama ne Saint-Louis boo ñàkk nekk première capitale du Sénégal te Saint-Louis Gandiol moo ko mag te bi ñu test département test ko synergie pour un développement durable yaakaar naa jigéen ñi fi teew lu leen di tax a teew mooy njëriñ bu Souleymane Ndiaye am te yéen ñëpp yéen a ngi gis seen bopp Souleymane loolu wala président ñëwal def sa discours bu ñu paree dañ waxtaan ak waa Ziguinchor yi dinañ leen def am jaar monsieur le maire merci beaucoup les maires qui sont présents merci beaucoup voilà. tàcc leen ko waaye Gosa a ngi ñëw dugg leen ngeen tàcc ko. léegi dama bëgg nañ ñëpp

alors boobu dégg la. et béyu bi yëpp boo ko si béyu bi ñu sant. ak béyu bi président bi naa di amaloo tout le monde. Vive Souleymane Ndiaye. Vive Souleymane Ndiaye. Vive Souleymane Ndiaye. Vive Souleymane Ndiaye moom moo Casamance. moom moo fi sampu. loolu am na merci beaucoup. loolu am. jërëjëf. déglu leen ko. jërë ngeen jëf kontaan nañu ci yéen. merci merci merci déglu leen ko déglu leen président. Kutiñam di kuliñam jom le saful kasumay mbaadi mandinkool ana kam be kontoon na jayla se wota baake bandiraaɓe sehlaaɓe mi salmini départementaux, messieurs les maires, chers responsables au niveau des instances locales et nationales de la synergie pour un développement durable, SDD Yonou Chers militants, amis et sympathisants, honorables invités en vos rangs, titres et qualités. Je suis très heureux de me retrouver au milieu de vous, en Casamance, où je suis né et grandi. La Casamance qui m'a tout donné. La verte Casamance où je retrouve aujourd'hui beaucoup de parents, d'amis et de proches, ainsi que nos voyants militants. Deux années après la création de notre parti, dénommé Synergie pour un développement durable Yonou je suis très heureux de constater que notre parti prend de l'ampleur jour après jour. Et ceci grâce à l'implication et au travail acharné de terrain et de proximité que vous abattez au quotidien. De Djogé à Gouloumbou, d'un pacte à le parti est en train de connaître une massification exponentielle. Donc, vous, la Calomasse, je ne peux pas vous payer. Notre pays traverse un moment historique avec la découverte du pétrole et du gaz, ce qui offre des opportunités immenses de développement économique et social. Nous avons conscience que quelle que soit notre intelligence, nous ne pourrons rien faire sans vous, car c'est vous qui êtes la source de notre engagement et vous connaissez mieux que quiconque ce qu'il y a de bien pour notre casse-masse, mais aussi pour le Sénégal dans sa globalité. C'est la principale raison pour laquelle nous avons voulu créer une synergie de réflexion et d'action pour ensemble développer ce pays. Notre engagement est centré sur la satisfaction et la réalisation des espoirs du peuple sénégalais. Et c'est pourquoi la SDD 2 s'est toujours positionnée sur tous les sujets intéressants de notre pays, le Sénégal, en analysant objectivement les défis et enjeux et en proposant des solutions concrètes, réalisables techniquement, viables économiquement et profitables pour les générations présentes et futures. Notre politique est centrée sur les attentes des populations et non une politique de cécité volontaire ou négationniste, ce qui serait pas honnête car son Excellence le Président de la République Macky Sall est en train de révolutionner le Sénégal. C'est l'occasion pour nous de saluer les multiples initiatives du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, qui, dès son ascension à la magistrature suprême de ce pays, a mis en œuvre tous les moyens pour fluidifier le transport, le transport maritime et routier en provenance et en partance pour Ziguinchor, en dotant le pays de navires assurant plusieurs rotations par semaine entre Dakar, Caravane et Ziguinchor et bus Sénégal d'Emdic. Nous sommes conscients qu'il est dans la dynamique de mieux faire pour nous et nous assurons ici qu'il le fera. En effet, en l'espace de cinq ans, le chef de l'État a doté nos ports de trois navires qui servent et desservent de l'axe maritime Ziguinchor-Dakar, avec une forte subvention du prix du billet à partir de 5 000 francs. Il a aussi mis à disposition des bus Sénégal d'Emdic qui permettent de voyager partout au Sénégal dans le confort avec, à des tarifs très accessibles. Mes chers amis, je voudrais que vraiment vous applaudissez cela. Applaudissez. Applaudissez très fort pour le, pour le président À travers le programme Pima, beaucoup de villages qui n'étaient pas électrifiés ou qui étaient sans eau sont aujourd'hui électrifiés et ont accès à l'eau. De Les députés, de la fourniture en continu de l'électricité a aujourd'hui été définitivement réglée à Dakar. Alors, avant 2012, on ne pouvait pas rester une journée sans une coupure ou des délaissages de plusieurs heures. Aujourd'hui, l'électricité est disponible couramment. Beaucoup d'autres projets et programmes ont été lancés depuis lors avec un seul but, un meilleur et équitable accès aux Sénégalais aux services de base. C'est le cas de la couverture maladie universelle, grâce à laquelle beaucoup de familles peuvent aujourd'hui accéder aux services de santé à des coûts très accessibles. C'est aussi le cas de la bourse familiale qui permet de lutter contre la vulnérabilité. En effet, beaucoup d'initiatives ont été déployées partout au Sénégal par le chef de l'État. Seulement les défis et enjeux reste de taille. Gouverner nécessite beaucoup d'arbitrage. Et ce n'est pas facile, car tout est priorité. Le président a entendu le message de la jeunesse. Et en tant que leader du peuple, leader proche du peuple, il a pris des actes forts pour répondre à l'attente de la, des jeunes même s'il faut souligner que beaucoup d'efforts ont été consentis pour cette jeunesse à travers les différents programmes et projets en faveur de cette jeunesse. Par ailleurs, nous rappelons que le président seul ne pourra pas tout faire. La dynamique d'émergence ainsi lancée nécessite l'appui et euh, l'accompagnement de tous. À partir d'aujourd'hui, sachez que vous avez avec vous un natif de la Casamance qui est prêt à donner sa vie pour l'intérêt exclusif de notre de Casamance. Boulot, boulot, boulot Et eh, boulot <laughs> est capable de réaliser non seulement des rêves, mais des certitudes. Par ailleurs, pour y parvenir, nous avons besoin de faire preuve de beaucoup de sens de responsabilité, en plus de l'ingéniosité et de l'engagement envers le peuple qui nous a tout donné et à qui nous devons tout. La SDD, en ce qui le concerne, regorge de jeunes cadres. Nous invitons à nous rejoindre massivement afin qu'ensemble main dans la main, nous puissions soulever des montagnes et donner à notre Casamance la place qu'elle mérite sur le plan économique et social. Vive la Boulot, boulot Car les collectivités territoriales doivent également participer à l'effort de construction et de développement des villes. Avec votre confiance, nous saurons trouver les moyens pour aider les jeunes et accéder plus facilement au financement de l'État par la sensibilisation et l'accompagnement. Pour y arriver, vous avez besoin de bâtisseurs, des jeunes comme vous, responsables et engagés aux côtés des populations pour les populations. Vous êtes venus nombreux pour prendre part à cette belle rencontre et sachez que j'ai vu et j'ai compris le message. Un grand merci à tous les responsables politiques, les membres du comité exécutif national, les membres du bureau politique, ainsi que nos voyants militants et sympathisants pour votre marque de confiance. Je ne saurais terminer mon discours sans pour autant saluer les maires qui sont là le maire Taïbou Diédhiou merci beaucoup. Taïbou applaudissez pour Taïbou Diédhiou. le maire Ibou Diallo Sadio merci beaucoup pour votre présence. Sadio les représentants du ministre Benoît Samou, merci beaucoup pour votre présence. les représentants du ministre madame euh, Angélique. Manga, merci beaucoup pour votre présence. Je remercie également tous les responsables qui sont là, qui ont honoré de leur présence. Je ne saurais terminer également mon discours sans pour autant remercier tous les responsables qui sont venus de Dakar. Les militants ont tout fait pour vraiment venir assister à cette rencontre, à cette mobilisation. Je remercie mes collègues Je remercie l'ensemble des Sénégalais. Djokondial, Albarka, merci beaucoup. Je suis vraiment content, content à l'aile. Assalamu alaikum, Bolomi. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di kontaan lool si mobilisation exceptionnelle boole leen ñu réserver tey muy démontré ne ñun ñoo nekk ci xolu waa Casamance gis ne yeen yeen waa Casamance ñu def te xam leen ne ñun pare neen suñu bi jox ko waa Casamance. waaw waaw su

nga xam ne moom moo tudd synergie pour un développement durable yoonu naataange. nga xam ne buñ ko créé tey si ñaari at rek la toll waaye mel ni ne parti bi ah ñun de ñëwuñ parti yu njëkk a parce que d'un pacte à Sédoba sooy jaar Goudomp partout département de Goudomp département de Oussouye département de Ziguinchor ak fépp vraiment parti bi nu magge fay màggee ñun ñi dafa weesu suñu njort te dinaa rassurer nit ñi fii mbooloo mi nu mu bëri bëri amul kenn kuy taxaw ne jox leen ko dërëm pour nga ñëw tertuñ donc loolu da ngeen avec seen ferme volonté parce que xam ngeen ne Casamance jamono jii ñun pare résolument pour jàppale leen loolu dama bëgg mu leer parce que d'habitude ku mobiliser rek ñu ne dañoo jox nit ñi xaalis man amul ku ma jox dërëm loolu amul ku ñu jox dërëm rek na taxaw weddi ko loolu amul Souleymane vraiment parce que dañu gëm gëm suñu projet de société ñun nak nag mënuñ dara parce que sun parti yi moo ñu tuddé ko synergie c'est la synergie de toutes les forces mo ñu permettre ñu soulever les montagnes c'est la synergie de toutes les forces mo ñu permettre ñu gagner les grands combats te yéen xam ngeen combat yu nek suñu kanam waaw waaw élection locale yi jàpp nañ donc dama bëgg no leen mobiliser tay ngeen continuer gën a mobiliser. dañu koy gagner inshallah allah. ngeen xam lii du dara ñun dañu doxantu rek mais bés buñ fi ñëwee dëgg ah yaakaar naa ne newuñ ci bakku de waaye lu ñuy wax ku ragal na nga daw ku ñeme na taxaw mais fii kenn du fi taxaw. parce que ah daal duñ ci boole wax ju bëri waaye lu ñu bëgg a rassurer waa mooy que président de la république Macky mu mu toogee ba tey mi ngi fexe ba nga xam ne Casamance mu jógee si jafe-jafe yu mu nekkee. loolu dëgg la. maintenant kenn mënul lépp dara bi te ñun ñoo war a taxaw jàppale ko si loolu nen fexe jàppale ko parce que nit kii su amee volonté di liggéey. nga koy gasal kamb ah yaakaar naa ne nu am am volonté dina président de la république xam naa ne kenn mënu ko gàllankoor mais mun neen décélérer sa vitesse te loolu ñun di leen taxaw doon un bouclier képp ku nga xam ne bëgg nga ko gàllankoor ñun ngay fekk en face loolu moom fii dinaa ko déclarer mu leer nañ ay ndaw kenn gënuñu doon ndaw amaguñ 40 ans donc ban ngeen ko ba noo ma gisee tenue de comparaison ñun pare neen pour xeex pare neen pour joxe suñu bakkan pour que Sénégal kenn bañ ko yàq. dëgg la parce que Sénégal mérité na leneen Sénégal jàmm leen fi xam Casamance ku leen xam xam ne ay nitu jàmm leen. dëgg la ay nit ñu jàll leen donc bu ñu nangu. ñun suñu valeur Casamance lu ñu xamee ñeneen jógee fële ñëw bëgg ñu ko yàqal loolu képp ku ko ba def képp ku ko bëgg a def fii di ñu fekk en face de vous ñu taxaw jàmmaarloog yow lool laa bëgg mu leer te ñëpp il faut que mel ni man yéen ñëpp taxaw leen sol leen ay tenue de combat ñu xeex ensemble pour que vraiment Sénégal Casamance ñu fexe ba nga xam ne loo seulement développement am fi mais développement bu nga xam ne ci jàmm lay amee yàgg naa di ko wax sans jàmm kenn mënul def dara nen bàyyi politique politicienne di jël jeunesse bi di leen manipuler yéen jeunesse bi vous êtes une jeunesse saine la jeunesse de la Casamance c'est une jeunesse saine donc bu leen nangu kenn kenn bul leen ko jaral mu dugal leen si ay naka sudul noonu walla si ay tuuxu duuna parce que ah képp kuñ si dugal également dañuy ñëw rek ñëw jàll yow yaay perte yaag sa famille loolu bañ leen ko bu leen si kenn dugal je pense que lu ëpp solo mooy lu concret lu nga xam moom leen ne di def maintenant la mère kenn mënu ko arrêter avec ses bras wala si ay wax ñun si lu nekk nous sommes si lu concret te loolu yéen ñii yéen a mus yéen ñu si mën a jàppale sama kàddu du gudd lool parce que xam naa ne mi ngi gudd mu guddi te am na ñu nga xam ne war neen ñibbi du ma samay propos sans pour autant remercier samay naataangoo yu fi ñëw waa parti bi ñu jógee fu ne les cadres les membres du bureau politique les membres du comité exécutif national les militants de tous bords waa Goudomp waa Sédhiou waa Oussouye waa Bignona waa Bona mënuma lim ñëpp fii ba Elinkine ñu bëgg a ñëw ñëpp ñun wax dëgg yàlla ah ñëpp xam naa ne moom munuñ fi daje waaye tey dama ne woon rek mu ñëw doxantu saafonte ak yéen mais bés buñ fi ñëwee dëgg ah yaakaar naa ne ah bu keroogee dineen xam ne Casamance ñun ñoo ko moom te képp ku fi bëgg di dara Casamance soo jaarul si ñun den ne wa atul buyoota min abwabiha da leen di jaaree eh, néeg yi si duggee si buntu yi jamono ji ñun ñooy buntu Casamance ku jaarul si ñun dara doo ko am loolu leen bëgg mu éclaircir ko mu leer nañ maa leen di nuyu di leen ziar bu baax jërë ngeen jëf Bulo bulo bulo bulo am na kado bu Thank